19 ci parrainage bi gis nañu ñu bëri ñu ngi génn donte ci mouvance ci mouvance bi la ñu bokk mais ñu ngi sasu ci wàllum euh, bàyyi rek yi nga xam ne parrainage bi euh, daanaka fi mu ne moo nekk euh, cëppa moo nekk njëlbeen laataa jongante yi yow kenn dégguloo ci média yi dafa conférence de presse wala woote woo wala dafa mel ne daal sa jàppale gi xanaa jàppale gi moom xaw ma noo koy jàppalee noonu mais sur le terrain est que mi ngi fës. xam nga buy taw kenn du fobeere buy taw. doo fa were man bu coow baree rek doo ma dégg damay préférer toujours seet la nga xam ni moo gën a moo gën a moo gën a ñor ci jamono yooyu ma def ko parce que parrainage activité animation la fi mu nekk nii ndax bu doon ne nombre de yi ñu lim bi ñu soxla rek kon keroog ba président Macky Sall wootee ca ca ca fule nu mu tudd si jam ñaajo jour boobu lañ koy regle bu jeex 1 pour cent xam nga jafewul. jafewul tur ki nga xam ne mooy candidat nekk euh, président ba pare nekkaat candidat jafewul donc effectivement ñu ngi ci liggéey mais da nga wax effectivement dama nekk président bu parti bu ñu tuddee CLP mais ma nekk également coordonnateur kuréel bu ñu tuddee rappel rassemblement pour la pérennisation du libéralisme day dellu si ci rek li ma waxoon ni fexe ba dajale njabootu libéral rappel boobu am programme boo nga xam ñu ngi ko tëral programme bu bokk na ci benn journée d'étude bu ñu war a def ci réew mi bokk na ci tournée au niveau national ak au niveau international loolu moo tax ñun au niveau de suñu parti ñu ni comme ñun ñoo bokk dañu bokk ci rappel du ñu beddi ko def suñu activité yoo nga xam day sore ak activité rappel donc dañu jël activité yu ñu doon def dëxëñ ko ci biir activité rappel ñu ànd defatoo ko mais effectivement ñu ngi ci ñu ngi ci bu baax